yi nga xam ne rek def na ko ci coowal covid coowal Prodac ak bu assemblée nationale jamono ji nag yéenekaay bi ne mbuur jaa ngi tàmbalee wàcc ci rapport OFNAC bu atum 2022 muy Prodac muy assemblée nationale fonds d'appui au développement du secteur rural yooyee yëpp épinglé nañu leen Le Quotidien yëglekaay des ba tey ci OFNAC mi nga xam ne rek mooy xeex lépp lu jëm ci wàllu corruption ak wàllu fraude yéenekaay bi ne juróom-ñeenti rapport nag jébbal ko waa parquet bi bi nga xam ne rek moo jëm ci yëngu-yëngu yi nga xam atum 2022 bu OFNAC bi nag mi ngi ëmb 95 plainte yoo xam ne rek dafa ànd ak dénonciation ñeen fukk ak ñeent ci ay déclaration de patrimoine yoo xam ne rek dañu koo enregistré juróom ñeent rapport yoo xam ne rek ay enquête la yu ñu amal jëm ci mbirum Prodac loolee lépp jébbal nañu ko wàllu yoon les échos yëglekaay dellu siwaat ci rapport bu OFNAC atum 2022 ni ay dossiers yu tàng jër ba noppi di lakke moom la ñu jébbal procureur yorinu bon wi nga xam ne rek yo woon nañ ko mbirum Prodac wàllu mbuxum goo xam ne rek nemmeeku nañ ko ci assemblée nationale jëm ci entretien entretien ak réparation ñeel ay woto wàllu covid 19 bi loolee xam ne rek moom la rapport bi fësal mbirum député bii di Cheikh Seck ak maire bu seen i dossier mi ngi ci table procureur bi téeméer ak yoo xam ne rek jóge nañ ci seen i barabu liggéeyukaay te yëglu wuñu benn yoon Sud Quotidien dellu siwaat ak yoon ak gëstu mi jugte ci wàllu mal gouvernance yéene bi ne of nag ma ngi koy lëñ ginnaaw bi nga xam ne rek cour des comptes ñoom génnee nañu seen rapport jamono ji nag waa of nag ñoo seeti procureur de la république jëm jëm ci yorinu bon wi nga xam ne rek yore woon nañ ko koppar yi nga xam ne rek moo jëmoon ci wàllu covid 19 rapport bu 2022 bii nag na mbuxum yi nga xam ne rek am na ci wàllu acquisition prestation et service de transport yi nga xam ne rek doon nañ ko amal ci mbas mi nag source a dellu soit ci boobee rapport yéenekaay bi ne baskay jamono ji ma ngay génnee mbóot yi lu jëm ci wàllu faux et usage de faux ñeel moom la enquête bi njëkk fësal atum 2022 teg ci lu jëm ci wàllu mbuxum yoo xam ne rek am na ci suñuy deniers publics bi loolee nag di ñaareelu position constitution bi door caa teg nag yorin wu bon wi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci àlalu réew mi ñeen fukki kaa ak ñeent wàllu corruption yi nga xam ne rek am na fukki yu yuñ ca war a traité lu jëm ci wàllu luubal goo xam ne rek am na ci koppari askan wi coowal suuf goo xam ne rek am na juróom-ñaari kaa yoo xam ne rek bi le rapport fësal na ko ci maire bu Sindia di Thierno Diagne ak naataangoom bii nga xam ne rek moo di Cheikh Seck nekk ca Nindi maire bu Ngor di Assane Samba ak maire bu Gandé Mamadou Sow Ibrahima Ba Demba Si ak doomam bu jigéen ñoom ñëpp nag daal nañ leen cay tudd la ci publication rapport bu OFNAC juróom-ñeenti dossiers yi nga xam ne rek moom la ñu teg ci taabalu jomaay jamono ji nag lu jëm ci rapport d'enquête bi nga xam ne rek jébbal nañu ko procureur de la république yéenekaay bi ne nag jamono ji nag ma ngay sàkku ñu leeral lu jëm ci wàllu gara daal di koy def muy crime international liberation de l'histoire ci nag mi nga xam ne rek génnee na yaataa yumbe gi nga xam ne rek délinquant yi doon nañ ko amal ci moomeelu askan wi commune bu Gandé maire ba nga xam ne moo fa nekk di Mamadou Sow nag moom dafa détourné koppar yu bëri ba noppi jël ab tracteur boo xam ne rek état bu Sénégal ñoo ko jébbal baykat ya mu leen koy luye coowal suufit tudd nañ ko ca moom moomee di ma Mamadou Sow commune bu Sindia Thierno Diagne nag moom ñu koy tudd ci ay mbir yu bëri jëm ci wàllu yoon bokk na ci détournement ñeel ab chèque boo xam ne rek coopérative bu Sonatel ca la tukkee waaye tamit ay indemnité d'expropriation ca commune bu Fawoon nag ab budget boo xam ne rek dañu koo jébbaloon maire ba ngir mu daal di cay tabax ay salle de moo ne meng kenn gisul koppar yeeg fi ñu ko dugal l'observateur xëy dellu si ci wàllu concession yu chantier de réparation navale yu Dakar Nave yéenekaay bi ne ab jeu d'intérêt bu jëm ci 80 milliards na ca président Macky dugalee loxoom laataa moo génn réew naka la def nag ba dossier boobee ñu daal di koy classé mu di ab secret défense jomaay mi nga xam ne rek jamono ji convoqué na nag ku fi nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu pêche ak DG bu sirne ca palais révélation yi nga xam ne rek moo jëm ci offre yeeg intérêt yi nga xam ne rek moom la ci état bu Sénégal am loolee lépp yëglekaay bi de na ci wax ci vox mi nga xam ne rek dellu na ci ndàmpaayu ñu bëgg a jébbal njabootug ñu la woon yi Ndiaye di xam la ci biir yëglekaay bi nag ne man sama rakk bu góor laa ñàkk te xalaatuma ne nag sama yaay dina nangoo jël xaalis boobee nag ñu koy bëgg a jox ngir di leen dëfal dañ ñoo war a won ne nag yoon dafa am ci réew mi ba noppi faaw rek ki nga xam ne rek moo rey suñu rakk ñu daal di koy xam rek mooy suñu càkkuteef lu si sànnee daal di xam ne ne nag dogal bu charge la njiitu réew mi jël mën naa jur ci njaboot gi waaye nag faaw yoon daal di def liggéeyam nag ba juróom benn fukki jeunes yi nga xam ne rek ñoom ñoo daanu ci ay manifestation ñu xam ñan ñoo leen boom Alioune Tine moom di sàkku ci biir yëglekaay bi ñu amal ab mémorial boo xam ne rek dañu koy jagleel martir yi nga xam ne rek ñoo daanu ci toolu xare bi bu ko defee li nu mel nag bañ fee amati ba faw li nga xam ne rek amoon na fii amaat fi nag bokk na ci accident yi nga xam ne rek mi ngi wéy di faat bakkanu askan wi 24 heures xamal ñu ne nag ab bus nag moo daal di renversé wu fukki doomi aadama ak ñeent ñàkk ci seen bakkan démb ci alxames ji la xew bi 18 heures jotee nag mu di ab bus horaire boo xam ne rek jóge woon na fii ci ndakaaru doon dem ca Kédougou moo def accident nag foofee ca Kaffrine fay tolloog fu ñuy wax mbajaanee na yéene kaay bi ne